ginnaaw bañ seen tàll subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër alxaaji sañ mbàkk si la mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu xam ngeen ne ci wàllu yar lañu doon wax ñaari ay bés yi nu génn ba nekkoon ci ay bés gi ci ñetti fan yi nu génn waaye seetlu ngeen nu seetlu ndaje mu am solo mi nga xam ne amoon na fële ca jam ñaajo ci njiital njiitum réew mi yal na ko yàlla yokk wér ndaje mu am solo ndaje ma jëmoon ci saytu jàmmi Afrique te saytu jàmmi Afrique boo ko yaatale mooy saytu jàmmi àdduna waaye boo ko ñoddee mu gën a jege si mooy saytu jàmmi réew mi jàmmi réew mi nag mun ko waxee muy saytu jàmmi région yi wàcc ci departement yi ñëw ci arrondissement yi jàmmi dëkk bu nekk ak moroom ja waaye dëkk bu nekk nag jàmmi quartier yi jàmmi quartier yi jur jàmmi kër yi jàmmi kër yi jur jàmmi entreprise yeeg société yi su ko defee fépp noy fépp am jàmm moo tax ndaje yi mel noonu am solo lool yàlla na yàgg am yàlla na yàgg am ay ruusit ay ruusit ay retombées yoo xam ne day dog jóge ca ndaje ma quartier yeeg kër yeeg arrondissement ak département yi yépp yëg ci seen bopp ne ndaje mañ daje woon jur na lii yàlla na ko yàgg def jàmm nag xam naa léeg-léeg baat bi di di bari waaw baat bi mën nay bari ci penc mi waaye keroog bi góor gi ci yoo faatoo yàlla na ko yàlla yokk yërmande te su masaana jeexal wax sa xalaat day wax réew mi am na jàmm yàlla yàlla yokk jàmm ji loolu la daan wax moo tax jamono ji mu faatoo biñ koy jaali nun waa Sud FM ñu def waxtaanu fajar wu jëm ci jàmm jàmm sunu boroom dafa am ci turam yu turam wu tudd jàmm bu nit jullee ba noppi mu ne da naan allahuma anta salaamu wa minka salaam allahuma anta salaamu wa minka salaam ku julli ba sëlmal day wax loolu yàlla yow yaay jàmm ji te jàmm ci lay jóge jàmm jooju ci lañu daggale jullit yi diine tudde ko al islaam waaw diiney jàmm ji jàmm jooju ci lañu daggale jullit yi aw tur tuddi leen muslimuun ñoom ñépp muslimuun waaw daggal ci kenn ku nekk nag saw tur tudde la muslim lépp baat baa ngi jóge ci euh, salima jàmm muy sunu boroom bokk ci turam yi diine ji nekk diine jàmm jul di nekk nit yi jàmm kenn ku nekk ñu tudde la muslim alayhi salaam nag ne la nag su fekkee ne danga bëgg a nekk muslim dangay fexe ba sa loxo bu mu lor sa làmmiñ bu mu lor bu sa loxo lorut sa làmmiñ lorut rek bokk nga bu sa loxoy lor sa làmmiñ lor nag boo bokket mëtoo noonu la ko aleyhi salaatu salaam al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi jàmm daal di tàmbali am loolu nag nit ki am na lum ci man mais am na loo xam ne dañ ko ko ci manal ah, boo demee ci al ulama bi ñuy seet li tax sharia ñëw fi lan moo tax sharia ñëw fi sharia dafay ñëw ndax pinc mi am jàmm xam naa léeg-léeg ngeen dégg ci alxuraan wa xaatiluuhum laa takuuna fitna xeex leen ak ñoom ba pénc mi am jàmm ko dégg def naan ah xeex ak jàmm mu ne waaw sunu boroom a ko wax waxaatiloo xaatiluhum xatta laa takuna fitna wa yakunu bi ñëwee gis ne kon lislaam li ko fi tax a ñëw mooy jàmm moo tax keroog bi ko sallallahu alayhi wootee ca Makka ñu ko doon dóor di dóori saabaam te du fayu ñu ko doon dóor di dóori saabaam te du fayu ñu di ko xas di xasi saabaam te du fayu ba ni ko sunu borom ne léegi mën ngaa fayu waaw ba ni ko sunu borom ne léegi mën ngaa fayu waaye bu sunu borom àddu wutoon ne ko léegi mën ngaa fayu duma sa fayu mukk wut jàmm tax mu dem làqu ji taayif wut jàmm tax mu làqi saxaaba ya abasha wut jàmm tax mu jóge makka ànd ak ñenn ànd ak ñëgëm dem làqu ji madina waa makka mi nga xam ne euh, bëgg koo xañ jàmm ndax defe ne jàmmam du seen jàmm ñu fekk ko ca madina songook moom ay xeex yu bari waaw songook moom ay xeex yu bari mbokk yi jàmm yàlla na jàmm ni yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla na jàmm nekk ci ak seen njaboot bi lislaam ñëwee dafa indi juróom yëf juróomi yëf yoo xam ne bu ko penc mi amee am jàmm bu ko Afrique amee mu ngi ci jàmm bu ko monde ci amee ñu ngi ci jàmm région bu ko am yaa ngi ci jàmm département bu ko am yaa ngi ci jàmm arrondissement bu ko am yaa ngi ci jàmm kër goo ko am famille bu ko am ñu ngi ci jàmm waaye entreprise bu ko am ñu ngi ci jàmm walla société yooyu la lislaam tëdd ndax pénc mi am jàmm ndax jàmm nu ma ne kon daje yu mel doon am na solo lool tabaarakal lool nag waaw wa in janahu li salmi fajnah laha suñu borom ne na ku la wuy ci jàmm wuy jikko waaw ku la tàllal loxob jàmm tàllal ko sa loxo ngeen am jàmm yooyu nga xam ne mooy may jàmm bi sallallahu alayhi wa ñëwee moom la doon jàngale juróomi yëf la yoo xam ne jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira ci yooyu la wékku bu ñu amee jàmmi àdduna am jàmmi àllaaxira am bu ñu amut am jàmm jafe pénc mi suñu amut suñu amee daal euh, diine dunya al ñaar yépp jub bu ñu amut nag diineeg dunya ala fasaad ñaar yëpp yàqu waaw ñaar yëpp yàqu te àdduna su yàqoo rek boo moytul fële mën naa yàqu daruriyaat yooyu nga xam ne juróom lañu mënuñoo ñàkk ci mpénc boroom xam-xam dañ naan wax ne bu ñuy nose ak a toftale juróom yooyu nan njëkke nàngam ñenn ñu ne déedéet nañ njëkke nàngam ku mel ni al imam ash-Shatibi buy toftale yiy taxa am jàmm du jiital sàmmal nit ki am amam daal di cay teg sàmmal nit ki am xelam li pénc mañ war a njëkk a mooy sàmmal nit ki am amam ndax sàmmal nit ki am amam da koy may jàmm moom may jàmmi bokkam ak këram ak euh, quartier am ak dëkkam di ba may Afrique jàmm imaam Shaatibi mu ne kon nañuy njëkke sàmmal nit ki alalam teg ca sàmmam xelam al imaam al Ghazali rahimahullah moom mu ne nanu jiital sàmm xel waaw mu ne moom buñ ko doon wax danaan sàmm xel lañu war a jiital teg ca sàmm aw askan teg ca sàmm alal waaye boroom xam-xam ne ni bii jiitu nag bii ci tege du débat bi débat bi mooy ku ba mën di jiite na juróom yépp dugg nañu liste juróom yi juróom yépp dugg ci kër yi ci entreprise yi ci société yi yépp bu ci nekk na dugg ku ci nekk ci noonu man mii di wax yéen ñi déglu ñu déglu alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne barki démb lañ doon daje di célébrer ak fàttaliku ganek jamonoom di jàng ci moom yépp dafa tënk ab jullit nu mu war mu ne ñaar rek man salimal muslimuna min yadihi wala min lisaanihi wa yadihi loolu bu nu ci yaroo nun ñépp fexe wa sunu làmmiñ du yàq sunu loxo du yàq allahu akbar sunu làmmiñ du yàq sunub loxo du yàq loolu mbokk yi ak riche loolu ak rëy ak rëy nga xam ne ku judd ci lañ lay jéem a yar ku màgg jéem ca yaru waaw ku judd ci lañ lay jéem a yar ku màgg jéem caa yaru waaw téye sa làmmiñ téye sa loxo ñépp mucc ndax li ëpp ci penc mi ci ñol-ñol ak yàqook jàppal bàyyil ak dóorante jaasee ki fetal làmmiñ a koy wax waaw li ëpp ci ay wuy am ci penc làmmiñ a koy def hmm? waaw mooy xañe jàmm moom làmmiñ wax loo xam ne kenn du ko wax waaw wax loo xam ne kenn du ko wax wala wax loo xam ne wëri su ko wax wala wax loo xam ne penc mi soxlawu ko ndax fitna su ko defee dënn yi jóg waaw korpañ danke jaas yi jaas loolu lu ëpp na di def kon nag bii mooy jiitu ak bee moo ci tege maxallu xilaaf la bayna al ulama waaw moo tax xadiya bi su boobaa moom daal nañ fexe ba jur ba juróom yépp dugg rekk bëgg naa ko toftale ci li xëj ci waxtu wu tey wi bu jeexut buñ dégloo waxtu wu ajjuma ak wu samedi wu dimanche dellusiwaat ci incha allah ndax jàmm jige inspecteur joxaane daan wax ne wolof nee na jaboot jàmmay mbokkam wax na dëgg jaboot jàmmay mbokkam yàlla na am jàmm Afrique am ko monde entier am ko waaw su ko defee bu nu àggee ci sunu gaas bi ndeysaan yëf yi gën fee neex buñ àggee ci pétrole bi di tànq di jaay mu gën fee neex waaw ñu rattaxalaat sunu mbedd yi ndeysaan dindi karkaasi oto yi ci pénc bi te boru fee nekk waaw tabarkalla pax yi ci dëkk bi ñu dindi leen waaw rek tabarkalla yëf yi di gën di naat rek waaw suñu stade yi ñu defaraat leen <laughs> waaw yokk jàkk yëg jumaa yi waaw régulariser yëf yi rek muy gën di neex waaw di dompal rajo yeeg télé yi moom daal yàlla nañ ci ak jeg jàmm danoo mas a seetaan benn théâtre bu tudd man le mandat waaw le mandat message boo xam ne waaw booba la gars yi di théâtre ndeysaan ñoom ñoom Lamine Ndiaye waaw tubarkalla le mandat ak ñoom jee yal yàlla sàmm leen waaw moo tax kon sunu sunu mandat bi bu ñëwee neex waaye sunu gaz bi itam ndeysaan ak sunu pétrole bi yàlla na ñëw te fekk nu fi ndeysaan Mbàkke si la keroog mu ne ah kat danoo gaaw a ñëw mu ne ko ëpp naa def di <laughs> mu ne danoo gaaw a ñëw mbokk yi bu nuy lim yiy maye jàmm te lislaam samp ko bëgg nun ñëpp nu sàmm ko Sénégal ci boppam sàmm ko région par région département arrondissement ba dem ci kër par kër Afrique gépp sàmm ko monde entier sàmm ko nu am jàmm li feeg sàmm nu ko nag alayhi salaatu salaam wa maa yantiqu anil hawaa li feeg sàmm nu ko eh, soxna Sala ak Ndey Faatu Jàllo yéen ñiy bind ak maa mbay tunkara <laughs> jël leen seen bindukaay ma lim juróom yooyu ba noppi door ñëw ci jéem jéem a def ay commentaire juróom yooyu mooy sàmm sàmm pas-pas maanaam li nit ki gëm sàmmal ko ko da koy may jàmm di may ay dëkkandoom jàmm la ca tege mooy sàmmal ko am xelam sàmmal ko am xelam la ca teg mooy sàmmal ko am amam la ci teg mooy sàmmal ko bakkanam la ci tegal mooy sàmmal ko ab deram juróom yi juróom yi bu fekkee dañuy wax données personnelles juróom yi da caa war a dugg walla mu doon ko ay données personnelles nga xam ne nit kee ko moomal boppam muy sàmmal kim jàkkaarloon juróomam yi kooku di ko sàmmal juróom yii waaw ko defee am pénc ñi leen jiite muy état di sàmmal ku ci nekk ci ñoom ñaar sa juróom yii sa gëm-gëm sa bakkan sa der sam xel sa alal waaw boo ci jiital jiital nag baax na bu des ginnaaw tamit du ko du ko yàq bu doon imaam Ablaye Ndaw ca naan day wax reer julli ak julli reer <laughs> waaw bu doon imaam Ablaye Ndaw ca ndànd moom bu ko jàngal day wax reer julli ak julli reer waaw lu ci mën di xew rek reer du mucc mbokk yi damay tàmbalee ci xibsu diin xibsu diin ad mooy li nit ki gëm gis nga gëm-gëmu nit xaj Abdul Al Amin daana wax ne kenn du ko xeebal nit ki nga fekk mu gëm ak mango màngo bu sikkalee mango googu rek yaa ngi koy xañ jàmm te xañ ko jàmm day tax mu xañ la jàmm ndax danga sikkal ak màngoom borom bi tabaaraka wa waxoon na alayhi salaatu salaam gis nga xërëm yii mu ne mu ne ko mooy yàllay gaa yi mu ne ko mu ne ko man nag yow maay sa yàlla hmm? ne ko xërëm yii ay bant lañ de ay bant lañ gaa yi yow nag maay sa yàlla mu ne ko waaw mu ne ko boo xasee seen yàlla yi ñu xas sa yàlla kuy sa yàlla mu ne ko yow boo saagaa seen bant yi ay yàlla yii ñu saaga ma wala tasubu lazina yad'una min dunillah fa yasubu llaha aduwan bi xayri ilm gis nga tomb boobu mooy gëm-gëm tàmbalee ci gëm yàlla yonent yi alayhimu salaatu wassalaam al anbiyaa wal mursaluun ñëw ci al awliyaa ñëw ci ashuyuux wal ulama di ñëw ba ci nit keek ab ustaasam yal na nu yàlla yërëm koo xas ab ustaasam mu xas ab ustaas <laughs> saa si gir ci koo xas ilimaan mu xas sa ilimaan waaw nun rek la de nun képp la nag waaye laay jooju imaam Ablaay Ndaw bu nu ko déggoon bu nu ko déggoon yu bari dana dana dana dana réglé wu ku ci ne ci ñun bàyyi xel ci gëm-gëmu nit ndax day bàyyi xel ci sa gëm-gëm waaye bu duggee ci ay gëm-gëmam mu dugg ci say gëm-gëm waaw lu am solo la kon pas-pas yooyu nga xam ne moo ne ci nit lii la gëm su fekkee lëm gëm jibuwu la ba nga bëgg koo indi ci li nga gëm dafa am yoon woo xam ne ci ngay jaar bu sottee baax na bu sottiwut nga muñ mu muñ waaye boo taxawee fee ne ko li nga gëm baaxut mu ne la yow li nga gëm baaxut li nga gëm nitiwut mu la yow li nga gëm nitiwut loolu alxuraan la wala tasubu la si yéen a doon min doon laay fa yasubu llaha aduwan bi xayri ilm lii maye jàmm ci pénc mi lislaam nee na nañ ci jiital gëm-gëm ku ci nekk ñu bàyyi lak li nga gëm laa ikraa fi diin ma ne su fekkee li nga gëm daf laa gën a gëm nga bëgg koo jële ci lam gëm indi ci li nga gëm dafa am méthodologie booy jaar waaye du ay saaga du ay yooxu du gàddu yet du gàddu yet waaw su ko defee xawaaidul yëpp day dugg ci biir xawaaidul imaan yëpp day dugg ci biir yàlla yonent bi wala yonent yi téere yi malaaka lu neex ak lu day dugg ci pas ak diin waaw a dugg ci biir waaw su ko defee bennal gi ñuy bennal sunu borom wéetal gi ñu koy wéetal dugg ci biir waaw ko defee nga daal di ñëw nag ibaadaat yi jaamu yàlla yi julli yeeg woor yeeg asaka yeeg seeni bokk hmm? asaka yeeg seeni bokk loolu lépp buñ ko jiitalee mbokk yi ci wàllu gëm-gëm eh, sàmmal nit ki loolu mu gëm bàyyi ko gëm-gëmam te bañ a xas gëm-gëm yam gëm waxuma laa di saaga loolu la sunu borom tabaaraka taala di juñ ci alxuraan waaw laa tushriku bihi shay'an waaw bu ko booleeg dara bu leen bokkaale yàlla ak dara waaw waxaat ne wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uuhu wa laa tattabi'u subul fa tafarraqa bikum an sabiili daalikum wasaakum bi la'allakum tattaquun na sama yoon a ngi nii tege leen ci bu leen topp topp leen ko bu leen topp ñalla wu ngeen gis rek jaar ca daf leen di tàqale te tàqalikoo jigu baaxul ci yéen waaw tàqalikoo jigu leen baaxul ci yéen mukk nag kon looloo tax lislaam ñëw euh, daa di rëdd aw yoon woo xam ne mooy sàmmal nit ñi seen gëm-gëm sàmmal nit ñi seen pratique ak ñoom seen yooyu jërë ngeen jëf mbokk yi bind bi jeexut dañu ak suñ koor yëkkatee ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seen i këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi ci tubaab firim fàncaloon ko ci wolof ñaana leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.